أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci qisasul anbiya ñu ngi tolloon fii yéeféer yi jàppe woon yonent yàlla ibrahim daal di koy dugal ci safara si borom bi tabaraka wa taala di nu nettali xabaar boobu xew-xew boobu ne moom yàlla mooy ki ne wa qulna ya naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim borom bi tabaraka wa taala mooy ki jox safara si ndigal ne ko mu nekk sedd ak jàmm ci ibrahim alayhi salaam imaam ali ne bi muy firi aaya bi dafa ne yàlla tabaraka wa taala dafa jox safara si ndigal ne ko bul lor ibrahim la tadurruhu ibnu abbas ak abul aliya ñu ne lawla anna allaha qaala wa salaaman ala ibrahim la ada ibrahima bardaha bu yàlla tabaraka wa taala waxul woon baatu jàmm bu ko ne woon bardan rek te waxul salaaman kon sedd bi dina lor ibrahim kaabul ahbaar mu ne bu yàlla tabaraka wa taala waxul woon safara si nekkal jàmm ak salaam ci ibrahim mais da ko ne rek nekkal jàmm seddal kon nee na safara dootul lakk nit ci kaw suuf mu ne kon nit ñi war nañ sant yàlla ba mu ne ba yàlla ne seddal ba pare nekk jàmm borom bi di ñuy nettali xew-xew boobu ak xabaar bi mu ne nit ñi bëggoon nañ ci Ibrahima pexe waaye yàlla def leen ñuy perte waaye yàlla def leen ñuy ñu suufee ci suratul anbiya aya 7 yàlla mu ne wa araadu bihi kaydan fa jaalnahumul axsarin nit ñi namoon nañ ci ibrahima pexe yàlla nee na ma def leen ñu perte ci suratu safaat mu ne wa araadu bihi kaydan fa jaalnahumul asfalin namoon nañ ci moom pexe waaye yàlla man maa leen def ñoom ñu suufe ibrahima daal leen di gañe ibrahima daal di féete kaw léegi nag suñu dar su tey mooy ci xew-xew boobu xewoon yàlla doon lakk ibrahim dafa am benn mbindeef ci mbindeefu yàlla yi bu ci participer te du nit te du jinne du malaayika te taxawaayam rafetul ba yonent bi joxe ndigal fuñ ko gis nañ ko rey lan la déedéet lan la déedéet lan la unk très bien unk ku la wax unk la ah da nga ko jàngoon daa tàndu rek unk la lu tax yoxe yonent bi joxe ndigal nan rey unk biñ dugalee Ibrahima ci safara si rabu àll yi dañoo ñëw bëgg safara si fay unk di ëf ngir mu boy ngir Ibrahima lakk muy ëf yonent bi ne fu ngeen ko fekk rey leen ko ñëw na ci hadisu Buxaari an umm sharik radiyallahu an anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatlil wazg wa qaala kaana yanfaxu ala ibrahim rawahu muslim yonte salallahu alayhi wa sallam dafa joxe ndigal ne fu ngeen gis unku rey leen ko rey leen ko rek dóor leen mu dee ñu ne ko lu tax mu ne kaana yanfaxu ala ibrahim da doon ëf safara si ndax safara si booy ndax ibrahima lakk gaaw a dee boobu benn hadis la ñaareel mooy hadisu aisha aisha xabaar na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na uqtulu alwasgu fa innahu kaana yanfaxu nnaar ala ibrahim qaala fa kaanat aisha taqtuluhunna kooku mu ngi ci musnad imam ahmad bu njëkk bi rawaahu muslim ñaareelu xadis bi imam ahmad moo ko solo yaay aysa ne yonent bi dafa joxe xabaar ne rey leen unk ndax moom moo doon ëf safara si ca ibrahim bi safara si bañee tàkk moo ko doon ëf ngir mu boy aysa nee na moo tax fu aysa gisoon unk da koy rey ñetteelu xadis ci imam ahmad lañ ko jëlee mu ne anna imraa daxalat ala aisha fa ida rumxun mansub fa qalat ma hada rumx qalat naqtulu bihi al awzaaxu imam ahmad ne benn jigéen moo dugg ci yaay aisha ci biir néegam wala ci biir këram mu gis benn xeej xeej mooy bant boo xam ne dafa gudd ñu yett ci suuf ba mu ñaw mu gis bant bi samp ndaw si ne ko waaw aysa looy doyee xeej bi mu daal di tontu ne ko naqtulu bihi al awsaaxu dañ koy reyee unku yi bi mu waxee loolu ndaw si ba pare pour ndaw si am kóoluteel ci li muy def moom xam-xam la koy defee summa haddasat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di koy wax xadis yonent bi mu ne ko inna ibrahim lamma ulqiya fi nnaari jaalat addawaabu kulluha tutfiu anhu illa l wasgu fa innahu jaala yanfaxuha alayhi aysa ne ko gis nga yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ibrahim bañ ko sànnee ci safara si mboolem rabu àll yi dañoo ñëw di jéem a fay safara si allahu akbar juilat addawaabu kulluha tutfiu anhu ñëpp a ñëw rabu àll yi ñëpp a ñëw di ko jéem a fay unku moom ñëw di ëf naan ngir safara si boy ndax ibrahima dee moo tax yonent bi ne rey leen ko aysa nee na ci beneen xadis ñeenteelu xadis bu imam ahmad génne ba tey xadis boobu ci muxiral moo ko nettali qaalat daxaltu ala aïcha dugg naa kër aïcha loolu la néegam fa raaytu fi baytiha rumhan mawduan ma gis fa xeej bu ñu teg fa qult ma ni ko yaa ummul muminin ma tasnaina bi haza rum yow yaayu jullit ñi looy doyee xeej bi qaalat hada li haadihi l awzaari naqtuluhunna bihi mu ne ko xeej bii day pour unk yi la moom lañ lan leen di reyee fa inna rasul salaa sallam haddasana inna ibrahima hiina ulqiya fi nnaar lam yakun fi l ardi dabba illa tudfiu nnaar anhu gayru lwasgu kaana yanfaxu alayhi fa amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihi yaay sa nee na yonent bi moo nu nettali ne ibrahim keroog bañ ko jëlee sànni ko ci safara si mboolem rabu àll yi dañoo ñëw di fay safara si rabu àll yi ñoom gaynde ñoom segg ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo ñëw di jéem a fay safara si ba mu des unk bandi bi mu ñëw naan pour safara si boy pour lan pour na Ibrahima dee moo tax yonent bi ne fu ngeen ko fekk rey leen ko unku baaxul nee na kaana yanfaxu alayhi da doon ñëw di ëf safara si fa amarana mu daan ñuy sant jox ñu ndigal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihi yonent bi jox ñu ndigal ne nan ko rey gis ngeen ñeenti hadis ñëw na di wax musiba yi unku mbokk yi mu des diggante Ibrahim ak buur bu kàccoore boobu ngeen dégg ngeen xam jàng ko muy namruud wala namruuz munazaratuhu alayhi salaam maa namruud ibrahim taxaw ci kanamu buur boo xam ne ñi mës a moom àdduna bi ñeenti buur lañ ñoo mës a gouverner àdduna tey seen président de la république nu mu tudd Abdoulaye Wade lan la gouverner ci Afrique lan la gouverner ci Afrique ah Sénégal Gambie sax gouverner wu ko waxuma la ak nag Afrique Namrud nag waxuma la Afrique waxuma la Asie àdduna la jiite woon ñeenti buur ñoo mës a jiite àdduna ñaar ñi ay jullit lañ ñetti ñi ñaar ñeneen ñi ay yéeféer lañ ñaar ñi jullit kan ak kan la suleymaan bun daawud ak zulqarnayni ñi ñoo mës a gouverner àdduna àdduna bi yëpp ñu nekk président de la république ñeenti buur yooyu ñaar ñi jullit lañ ñaar ñi yéeféer ñaari jullit yi mooy suleymaan ak zulqarnayni moom la ñuy wax Alexandrie le Grand keneen ñeneen ñaar ñi firaw na Égypte doomu la jiite woon kenn ki mooy Namruud keneen ki mooy buxtu nasar buxtu nasar ñeenti ñi ñoo mës a gouverner àdduna Namruud moom mooy buur bi njëkk a teg mbax ne or ci bopp bi Namrud ci banditisme bi mu nekkee woon dafa amoon ay jabarkat ay xërëmkat benn bis xërëmkat yi ne ko da ngaa nar a folleeku de benn xale moo nar a judd fii folli la mu joxe ndigal jigéen bu am doom bu góor noonu ko rey mu joxe ndigal ne benn góor amul droit seeg sa soxna lu dul mu gis baax bu gisee baax nga seeg moom baax bi arrêté nga arrêté yemul loolu sax mais dafa génne góor ñi dëkk ba yóbbu leen ci àll ba ne benn góor bu mu dugg ci dëkk bi góor gu mu gis nga dugg ci dëkk bi dalay rey moom moo jiite woon dëkk bu tudd baabil ci biir baabil dafa amoon benn gox bu tudd niinawaa foofu la namrut nekkoon bokkoon na ci reewandeem mu ne day rey yàlla mu ne moom day rey yàlla borom bi tabaraka wa taala di ñu nettali benn passage ci quraanul karim ci suratul baqara aya 258 borom bi tabaraka wa taala nee na بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهي ويميت قال أنا أهي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ورمبني ألم ترى خنا جسو ألم ترى خولل تييم انظر وتعجب alam tara unzur wa taajab xoolal te waaru ilal lazi ci waa ji nga xam ne xaaja ibrahim dafa doon discuter ak yonent yàlla ibrahim di weranteeg moom ginnaaw ba ibrahima gañee nekkee ci safara si ba génn mu ne mu ne day feetal ibrahim ibrahima yow kat dinaa rey ay nangamu gëléem nangami nag nangami xar nangam nangam dinaa rey lu bëri ibrahima ne ko pour lan mu ne pour ma jege ko sa borom ndax yow sa borom ku am doole la ibrahima ne ko boo ko reyee yàlla du ko nangu ndax yow yéeféer nga mushrik la ku ragalul yàlla lu mu def yàlla du ko nangu innama yataqabbalu llahu minal muttaqin loolu def yàlla du ko nangu mu ne ko kon yow danga ma yàpp fii maa fii yàlla ibrahima ne ko doo yàlla mu commencé di discuter ak ibrahim lu tax muy discuter ak ibrahim ndax an aataahu llahu lmulk yàlla may na ko nguur gis ngeen nguur nguur lu bon la nguur baaxul lu dul nguur jullit gis nga yàlla xas na buur yi ci alquran mu ne innal muluka ida daxalu qarya afsadu xam nga nguur bu duggee ci dëkk nu muy def day jël ñi teddoon ñi baax ñi mu wàcce leen mu jël bandi yi yéegal ci kaw ñi teddoon da leen di daaneel def leen ci suuf ñi tedd di woon nekk ñi gën a mbaame ca dëkk ba nekk ñi gën a yées mu def leen ay ministre ay sénateur ay député ak président loolu la buur di def da buur baaxul buur su amee tuuti rek commencé bew réew parce que nguur day jayaate am na gaa yoo xam ne dañ naan man kay bu ma jeexale sama mandat rek benn mandat rek waaye nit ñi bëgg nañ ñëwaat mu tëcc waxuma la sax loolu mais dañuy dem ba bëgg a jox seen doomi affaire bi ñu defa ne ñoo ko moom dafa ne dëkk bi ñoo ko moom wala seeni baay seeni maam ñoo ko moom nguur gu baax bari wut dañ koy lim ci ay baaraam surtout nag nguuru jamono bi nga xam ne ragaluñu yàlla gëmuñu lislaam surtout nguur yi la moo tax namrud bew an aataahu llahu lmulka ndax yàlla da koo jox nguur mu woo ibrahima ibrahima ñëw mu ne ko yow sa borom lan lay def sa borom lan la mën dégg naa yow nga ni man moom ma la du ma sa borom da nga am borom beneen budul man mu ne ko waaw mu ne ko sa borom boobu yow lan la mën is qaala ibrahim rabbi alladi yuhyi wa yumiit ibrahima ne ko sama borom mooy dundal mooy rey ku dund moo la dundal ku dee moo la rey mooy dundal mooy rey moom it mu ne qaala ana uhyi wa umiit man tam damay dundal damay rey ibrahima ne ko non loolu mënoo ko mënoo dundal mënoo rey am na ñaari nit yi ñu condamné moon à mort ci kasoom yi mu daal leen di woo ñu ñëw mu ne garde yi dem leen ngeen indi ñaar ñooñu ñu indi ñaar ñi mu rey kenn ki mu ne kenn ki yow demal baal naa la mu ne Ibrahima gis nga kii maa ko rey kii maa ko dundal bàyyi naa ko ma neexal léegi ma rey ko parce que moom déggul Ibrahima fa muy waxee moo tax mu indi système bi mu def nii mais déggul waxu Ibrahima dafa yaakaar ne Ibrahima da ko ne ku la neex nga rey ku la neex nga bàyyi du loolu waaye Ibrahima daal di koy wiiri koñ comme day jéem a dàgga sante ak koo xam ne li muy wax lu ko wóor la ci am lu leer lu wér këng Ibrahima ne ko qaala Ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib allahu akbar sama borom day yow Namruud bu jant bi sowee sama borom moo koy génne penku yow nag dañoo bëgg bu sowee rek génneel ñu ko direct penku bul xaar sax ay minutes muy fanaan ba wër set muy génnaat bu ko yàlla dugalee penku rek génne ko sow ndax namrud xamati na lu muy wax yàlla mu ne fa buhita alladi kafar mu daa di mu daa di wetem xam ngeen wetem xam ngeen wetem mu daa di muuma mu lu mënatul wax lu tax ndax liñ ko wax mënu ko sànq nañ ko ne yàlla mooy dundal mooy rey mu ne man damay dundal damay rey mu dem jël kenn rey ko kenn ki mu ne ko baal naa la ko ñu ne ko yàlla mooy indi jant bi penku indi ko saw mën na loolu ndax am na ku mën loolu yàlla rek moo ko mën bu yàlla indee bëccëg kan mooy indi guddi kan bëcc guddee ngi nii ne kenn ne déedéet ñun sunu football bi day guddi amuñu làmp nañ téye jant bi tey guddi du am am na ku mën am ñoo am bu ñu sañoon guddi du am dañuy fo rek waaye yàlla bu indee guddi kenn mënut a fexe ba indi bëccëg bu yàlla indee bëccëg kan moo mën a indi guddi hmm? kenn mënu yàlla rek bu yàlla indee dund kenn mënul indi dee bu yàlla indee dee kenn mënul indi dund yàlla rek yàlla mooy def mooy dindi moo tax namruud fa buhita allazi kafar wa ahassa bi daaf mu yëg nag le lott na yambare na la ko ibrahima wax munu ko wal ajz yëg na télé wal muhaana yëg na toroxtaange yëg na ñett yëg na ne yambare na ci peuple am yëg na télé na yëg na torox na léegi lu mu def moom ibrahim lu mu def moom namrud mu daal di génne ibrahima dëkk bi yàlla moom tabaraka wa taala bés bu nekk day dimbali ay ñoñam day dimbali ay yonentam wa hakaza ayuha al ahbab kaana xilaaku namrud namrud nag nii la faatoo ginnaaw moog ibrahim namrud nii la ko yàlla reyee namrud bañ na gëm yàlla lànk na di wane doole di wane kàttan di jaay yàlla dëgër bopp di féttërlu te yàlla moom li mu yor ci armée li mu yor ci soldaar kenn xamul nu mu toll yàlla nee na wa inna jundana lahumul xaalibuun man sama soldaar yi rek ñooy gañe yàlla wax na ci alquran wa maa yaalamu junuuda rabbik illaa hu sama sama soldaar yi kenn xamu ko ku dul man est-ce que xam ngeen ne malaaka yi ay soldaaru yàlla lañ xam ngeen ko xam ngeen ko la xamu leen ko est-ce que xam ngeen ne am na ci jinne yoo xam ne ay soldaaru yàlla lañ est-ce que xam ngeen ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay soldaar yu yàlla lañ waaye soldaar yi li ñuy am doole am na yàlla yàlla am na yeneen soldaar yu ndaw yoo xam ne bu ko neexee mu yónni leen géej gi ci soldaar yàlla yi la bokk suuf si ci soldaar yàlla yi la bokk yàlla yenn saa yi mu toog ba caag rek mu ne géej gi dama bëgg nga dem dëkku sàngam alak ko géej gi daal di génn comme ni mu ni mu def japon fan yi yenn saa yi mu toog ba caag mu ne suuf si dama bëgg nga woon nit ñi sama doole comme ni mu def Haïti yenn saa yi mu ne ngelaw li comme ni mu def Amérique waaye gis nga yii yàlla am na yeneen soldaaram yu ndaw am na ci soldaar yi soldaar yu tudd yoo yow est-ce que am na valeur boo ko tàccoo mu dee boo ko dóoree mu pàcc waaye yoo du lekk ñax du lekk ceeb ni muy li muy yambare yambare du lekk ceeb du lekk ñax du lekk mburu du naan ndox yoo lu muy lekk lu muy dundee deret te deret daa cher de deret daa cher te yow loolu lay dundee yow amul bëñ day muucu rek deret bi di génn ba biir bi fees balaa yàlla tabaraka wa taala di yónni ay soldaaram ci buur boobu tudd Namrud yàlla daf ko yónnee benn malaika malaaka bi ñëw woo ko kuñ tuub mu bañ malaaka bi ñëwaat ñaari yoon woo ko mu bañ malaaka bi ñëwaat ñetteelu yoon woo ko fa aba mu bañ wa qaala ijma jumuuk malaaka bi ne ko dajaleel sa mbooloo dajaleel sa armée man damay dajale sama armée dañuy xeex man ak yow Namrud daal di dajale arméem soldaar yépp ak armée bi nu mu toll mu préparé génn dajajeeg waa jooju jox ko rendez-vous pour ñaari soldaar yi ñaari armée yi xeex yàlla daaf tabaraka wa taala daal di yónnee armée Namrud zubaabam min al baud ay weñ yoo xam ne ñi ngi mel ne yow boobu jant baa ngi waaj a fenk waaye yàlla dafa yónni yooyu ba kenn gisatul jant bi yooyu dañoo muur jant bi ndax nu ñu bare yooyu song armée Namrud naan seen deret ba ñu dee ñoom ñépp benn waay dina ne mais armée naka la yoo di naane seen deret ñoom ñëpp ba mu dee yow benn ni benn yoo ci sa biir néeg rek mënoo nelaw benn yoo benn yoo rek moo nekk ci biir néeg bi munoo nelaw nga jóg tàllaab bi xool xool gisoo ko nga tëdd mu ñëwaat nañ nopp nopp bi daw taxaw fële dugg ci ron lal gi nga yeewuwaat tàllaab bi xool xool mu sodd gisoo nga jël uppukaay taxaw da di ko xaar pour mu ñëw benn yoo kese kon bu doon bu doon cent yoo ñoo nekk ci biir néeg bi nooy def bu doon 200 nag bu doon 300 bu doon 1 million yoo nga fanaanoon ci biir néeg di nga nelaw kon loolu mën nañ naan sa deret ba nga dee parce que doomu aadama am na benn quantité deret bu génnee ci yaramam doomu aadama bi day dee d'accord ngeen moo tax boo gaañoo boo amee benn blessure ñu ne nañ gaaw takk tànk bi balaa deret ji di di jeex ñu takk foofu yooyu la leen yàlla yónnee yooyu naan seen deret ñoom ak seen fas yi parce que yooyu dañoo bëri yooyu yoo xam ne dem na ba muur jant ba ngeen gis te lumière yi kon loolu dafa bëri maanaam li tax yàlla yónnee namrud yoo ndax namrud da doon jaay ngand ngandul di wan ne moom buur bu am doole la yàlla la yàlla dina ko ne dinaa la yónnee lu ndaw loo xam ne dina la toroxal firawna bi mu ne ana rabbukumul aala yàlla yónnee wu ko dara yàlla da ko jël rek labal ko biir géej kon yàlla nag da koy wan ne yow doo dara gis nga ñii ngand ngandul ci kaw suuf lu ndaw la leen yàlla di boole lu tuuti parce que yàlla da leen di wan ne du ngeen tus am na benn buur bu tuddoon Goliath du moom ngeen di wax alxuraan di ko wax Jaalut kan moo ko rey Daawud lan la ko reyee benn xeer te waa ji ponkal la woon bopp bi comme jàkka ji la toll su dëggee tànk bi teggi nit mën na cee dugg pax daawuda moo ko rey benn xeer la ko dóor mu dee gis nga chaque jour yàlla day wane ñi ngandi ñi du ngeen dara lu tuuti ba leen di rey lu tuuti loo xam ne buñ la ko waxee ngay sikki sàkk ndax yàlla mooy ku ngand ki yàlla day wane ñi duñ dus duñ dara mu des nag buur boobu tudd Namrud yàlla rey na soldaar yi mu des moom yàlla yónnee ko benn yoo muy wax rek yow bi na farax ci bakkan bi dem ci yuur yi toog foofu bu toogee bëgg a wax rek yow bi nekk ci biir naan mu yëngal bopp bi yëngal bopp bi yëngal yëngal affaire yi metti mu mbëkk miir yi dóor yenn saa yi sax mu am gaa yoo xam ne dañ dañ leen a tàggat rek dañuy nekk ci wetam bu yow bi commencé rek ñu pes tël tël bopp bi daal di normalaat mu taxaw tuuti normalaat noonu rek la nekkee benn yoo la yàlla yónni ci biir bopp bi yoo bi toog foofu di yuux di way rek mënatul toog benn place benn place mënatul toog est ce que mbokk yi xam ngeen ne yow bi ñaata at la nekk ci biir Namrud ci bopp bi xam ngeen ko hmm? yow bi ñaata at waxuma fande waxuma weer yow boobu dugg ci biir bakkalu Namrud dem ci biir yuur yi ci dimaar bi mu toog foofu xam ngeen ñaata at la def ci bopp ci bopp bi ci yuur yi xam ngeen ko arbaatu mi at sana mooy ñaata at arbaa mia sana arbaa mia ñeenti téeméeri at la yooyu toog foofu ñeenti téeméeri at la yooyu toog ci biir bopp bi di yuux am na ñu ne bi ko yóbbi sonalee ba sonal ko ba sonal ko ba sonal ko mais riwaay yooyu ibnu kasir indiwu ko parce que wóoluwul ndax wér na dafa woo ay tëgg ñiy tëgg urus ak xaalis mu ne leen dama bëgg ngeen defal ma benn bopp boppu nit bu rafet boppu or tëgg yi daa defar boppu or ba mu rafet ñu natt ko ci bopp bi ñoo ko léegi de pare na mooy léegi da ngeen di dagg sama bopp bi ngeen pooseel ma bopp boobu am nañu ne dafa am benn jabarkat bu ko jay jàngal ko loo xam ne buñ ko jàngalee nit même buñ daggee bopp bi mun nañ ko kolewaat mu dund ay xam na ñaari riwaay yi moom wérul ñu ne bu ñu leen ko jàngalee ba ñu mokkal ko gaa yi dagg bopp bi rek yàlla daan leen di fàtte loolu lañ doon jàng moo tax ibnu kasir indiwul ñaari riwaaye yi ba gaa yi defaree bopp or yi ba mu pare di ko kole dagg bopp bi rek indi beneen dañuy kole mënul nekk mënul ànd mu daal di faatu moom Namrud fan la mujjee moom da gouverné woon na àdduna ñeenti téeméeri at yàlla ëffal ko benn yoo ñeenti téeméeri at mu nekk ñaata at maanaam li mu doon tooñ ak li mu doon jaay banditisme lu toll noonu la ko yàlla fay ñeenti téeméeri at la tooñ doomu aadama yi def lu ko neex ci àdduna yàlla boole ko benn yoo benn yoo la ko yàlla boole te loolu neex naa dégg de xoolal yoo yoo ñun bu ñëwee sunu nopp ba yuux duggul ci biir de ci buntu nopp bee nga taxaw yuuxu yeewu nga wala yeewoo yow mi doon nelaw yee na la wala yeewu la yee na la bu duggul ci sa biir bopp bi nag di nga mën a toog loolu sax dafa dafa rëy benn pepp suuf bu duggee ci sa bët benn pepp bu duggee ci sa bët doo am jàmm lu pepp suuf boobu génn doo am jàmm benn pepp suuf laa wax doo am jàmm lu dul mu génn kon yàlla bu nee maa boole ak Namruud benn yoo yoo bi lëjal ko ba rey ko ñu war xam ne kon doole yàlla xëjul ci ñun moom Namruud noonu la ko yàlla faatee yàlla alak ko moom ak ay soldaaram moom ak ay mbokkam moom ak ñépp ñoo xam ne àndoon na ak ñoom incha allah mbokk yi loolu moo doon darsu tey mooy diggante unku bi ak namruud muy ñaari yéeféer unku yéeféer la namruud yéeféer la yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu jox ñu digal fu ñu gis unku nan ko rey amaa li nit ñi di wax nag ci unku amaana ñoom oustaz mës nañ gis xadiis yi wala riwaaya yi wala ne boo ko dóoree benn daal rek am nga téeméeri tiyaaba man nag gisaguma ko incha allah ku ko gis rek mu dimbali ñu ci ndax ñu gën a am tiyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.